benn benn gàtt nga daal di ne ci barkeb sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam koy rendi soo yàggalee watal sànni medd na ndax foofu yàlla rek lañ fiy tudd bu mu wax ñeneen nii sama yoon du ci nekk yow yaa koy xam faman utturra buur nekku loru loof na ko xayra baaxin kooka nekkul aji beew wala aadin duur aji jéggi dayoo koo xam ne nag dafa loru ba bu lekkut dafay dee kooke day mën naa lekk loola ndax moom loroo tax falaa isma kon kon déet bàkkaar ali di war ko ci lekk liñ ne medd na inna laa yàlla moom xafurun aji bale la rahimun aji yërëm la bàyyi na loolu ngi ñëw ci ahlul kitaab ahlul kitaab nan lañ gisee alquran ahlul kitaab nan lañ gisee yonent bi alayhi salaatu wasalaam li ñu gisee alquran moo di ne lépp luñ jàngoon ci tawraat ak linjiil bi mu ñëwee tey dañ ko weddi kon àddina gënal na leen seen alaaxira ba jaay nañu alquran ji jëndee ko seen àddina mu jaral leen ñu di ko weddi loola it ñoom ñi nga xam ne ñoo doon fóode yahudi ak nasaraan yi ak képp kuy def loolu yaa ko moom nga jël téere yàlla bi di ci waxal nit ñi yi leen neex dëgg ya nga nëbb ko ngir liñ la cay jox sama borom ni kooku safara rek ngay lekk ci sa biir te bu yowmal qiyaamee <coughs> da nga xam loolu sama borom tabaraka wa ne koo xam ne daal sa àddinaa la gënal sa àllaaxira dëgg-dëgg nag yaa ñeme safara loolu waxin la moo tax mu ne ina na naka ñi nga xam ne yëg tumuuna ñooy nëbb maa anzala la wàccee na ko laahu yàlla minal kitaabi ci téere waaye charoona ñuy jëndee bii ci téere ba tamanan njëg qalilan gu tuuti te mooy àddina ulaayika ñooñu day maa yakuluuna lekkuñu fi butunihim seen biir ya ila naar lu may safara tax na ba yowm alqiyaam wala yukallimuhum allah du wax ak ñoom sax yowm alqiyaam yàlla du waxee ak ñoom keroog ndax it ku yàlla di wax ak yow sax amat na mu yërëm la waaye comme booy wax sax du wax ak yow loolu moom xam nga day daal di nekk mbir mu metti rek wala yuzakkihim du nangu seen ak sellal wala hum ñeel na ku yàlla nanguwut sag sell du waxeek yow ñeel na ñoo ñu aadaabun mbugal alimun moo xam ne aji metti la mu lu ko waral ndax ulaayika ñooñu la dina ñoo ñi nga xam ne ishtaraw jëndee nañ ab dalalata ak réer bil huda akum njub wala aadaaba jënd nañ am mbugal bil maxfirati njëggal fama asbarahum ala naar ñoo ko ñeme safara ndax taajub boobu bo taajub boobu yëpp soo boolee jumla ji لول لي تكي تي معنى صحيح معنى ني ньо ني مسافرا ذلك لول بان الله نك يالا نزل واتينا الكتاب التير بالحق تي دغ وين الذين نك نيغا خامني اختلافو ووت نان في الكتاب تي تير بي لا شقاق نيغا نك تي ووتي بعيد بو خامني اجي سري لمو دغ بين لول لغي دا فاي تكي لان موي حقيقه البر ndax birru moom mooy rek jublu penk di julli këpp këpp allah akbar asalaamaaleykum ndax ku yem ca loola rek mën nañoo wax ne xeeti topp yàlla yëpp def nga ko te fekk imaan bi amut te fekk gëmoo téere yi te fekk gëmoo malaaka yi te fekk rafetoo jikku doo doo jëflanteeg dëkkandoor yi lu baax doo dimbale miskin yi wala jirim ya te fekk doo te fekk itam gannaaw julli ga asaka doo ko joxe amuloo kóolëre ngay wor te te doo muñ ku ku ñàkk ak muñ nga ku ñaaw jikku nga ndax loolu dina nekk birru mën a déedéet fokk nga boole yépp pour doon ab birru moo tax buur ne laysal birru de di nekk di ak topp yàlla antu walloo ngeen di jubale rek wujjahukum seen xarkanam ya qibalal mashriqi ci penku wal maghribi sow jublu ci penku rek di julli du ne loolu rek ay topp yàlla walakin al birra waaye lu fi nekk ak baax kay man mooy koo xam ne amana gëm na billaahi ci yàlla wal yawmil aaxiri mu gëm bés pénc wal malaayika mu gëm malaaka yi wal kitaab ak yi yàlla wàcce wan nabiyiina ak yonent yi wa mu joxe it almaala alal ala xubbihi fekk ma nga ko bëgg lool mu jox ko ñen zawil qurba ña ko jege ci bokk mu njëkk leen a dimbale balaa moo dem feneen wal yataama jirim yi ñu ñàkk seen wayjur wu góor te fekk mataguñ mu kàllaf wal masaakin ak miskin ñu dara ba xeeti dara jeex wabnu sabil ak ku tumurank koo xam ne donte dëkkam am na fa it fii moom dafee wa saayilina ak ñooy wër nag di yelwaa naka laaj ñooñu it mu jox leen wa fi riqaabi ak ñi nga xam ne bu ñu amee jaam dañ koy goreel ngir yàlla wa qaamate muy tax door a taxawal nag salaati julli waata muy joxe azakata azaka wal muufoon ak ñay matal bi aadihim seen kóolëre isa ahadu buñ fasantee kóolëre wa saabirina ak ñay muñ fil basa i ca tartariya wa doraayeg lor ya وحين البأس أتى وقت ومبير ما يدور قوم يمتد ومؤمن تبارك وتعالى فان تعبير بالغ في وقتين في البأساء والضراء فين قمنا بولور نيوي ولا اي ترتر دنا مون دفا قمنا امنا تي قمنا تي ساسا دو مون وي مو مون مو ادم خوتي ساي لخ ويقو تي yuuxu ndax musiba ñaari fan nga fàtte ko lekk naan nelaw sangu ñu ne muñ nga mu ne déedéet muñuloo moo tax buur ne wa xiinal basi ak ca waxtu wa ay wa di xew foofu laa soxla sëg muñ ulaayika ñooñ la dina ñooy ñi nga xam ne sadaqoo ñu dëggu ulaayika ñooñ mu ñoom almuttaquun ñoom ñooy ñi nga xam ne dañuy ragal borom bi tabaraka wa taala bay na lool mu ñëw ci li nga xam ne tey moom la jullit ñi war a jëfandikoo su ko jullit ñi jëfandikoo woon dal di am jàmm moo di ne fayu rek ku rey nit nañ buñ la reyee rek kenn du reyati kenn ku sàcc buñ daggee sa loxo rek kenn du sàccati ku yàq alali jaambur nga fay ko ñi duma la rek kenn du ko defati mu ne loolu mooy tax ngeen dund jàmm yéen a koy amee ci képp ku yàq jàmm ñu mbugal ko rek mu dal di ko bàyyi mu nekk ibra pour ñeneen ña kenn dootu ko def moo tax buur ne xajaas yi ne li ko taxawaat ci sax moo doon benn xëccoo bu amoon ci diggante ñaari giir ci arab ya benn giir ba ne su ngeen reyee ci ñun gor daan rey ci yéen jàmm su ngeen reyee ci ñun jigéen daan rey ci yéen góor ndax ñun noo leen gënu xeet ñuy ñu jàppante jàppante ba metti lool ñu ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam yàlla ne ko nag fayu rek ci yem moom la loolu la ñu bëgg moo tax yàlla ne ya ayuha alladina amanu ee yéen gaa ñi gëm alquran kutiba farataalif na aleykum ci yéen alqisaasu fayu fil qatla ca ñu ñu rey ñëpp nag alxurru gor bil xurri dañ ko rey ci bu reyee gor wala abdu jaamil bil abdi ci jaam wala un saa jigéen bil un saa ci jigéen fa man ufiya ku jéggaleef na la woo ko min axihi ci mbokkam cheyun dara fa tibaaun war na ko tofal bi maarufin ci lu baax wa adaawun ak joxe ilayhi bi ixsaanin ci njekk bu fekkee ne nit dañu rey mbokkam walla jege ñaaleem mu jéggale mu waroon mu waroon a dem ci yoon ñu fayu ca kooka rey ko mu taxaw ci géew ba ne jéggal nañ seen deretu mbokk ngir yàlla mu ne sharia ne bu mu ci yem bu mu ko jégal ba pare tongoo ko bu ko jégalee na jàmm dox seen diggante <coughs> soo demoon tey ci fu mel ni Arabie Saoudite nga xam ne dañuy def qisaas te ci am ay sa yoo xam ne fekkee ko lu doy waar la dañuy teg nit ki nga xam ne dafa rey nit ki <coughs> takk bët yi yeew ñaari loxo yi ci gannaaw génnee ko baabu salaam sotti fa beeñ bu bari mu sukk walbati ku jubloo ak kaaba gi mbooloo mi def ko ab géew elimaan ji ñëw <clears throat> ak ñi nga xam ne ñoom la tooñ seen bopp daal di ne kii moo rey diw ñu laaj ko ne ndax yaa ko rey mu ne waaw mu ne ndax xam nga ne xam nga lu yàlla wax ci ku rey nit te tey ko <clears throat> mu ne waaw ndax jëggëm nga alquran ji mu ne waaw mu ne xam nga li lay xaar kon mu ne waaw <clears throat> mu daal di ne kon kii yoon wee ko rey ndax moo fi jëlee bakkanu jaambur yoon wi ne moom it na fi jóge su ko defee kenn du ko defati daldi ne ku ci am lu ciy wax na ko wax bu ilimaan waxee la noppi ab diir ba yàgg mu ne ku fi am lu mu ciy wax na ko wax benn yoon la woon ba mu waxee ñaari yoon loola balaa moo ñetteel am ku yëkkati baaraam mu ne ko waxal mu ne ko ñun la reyoon suñu benn rakk xaw ma suñu benn mag baal nañ ko baal nañ ko ngir yàlla euh, loolu moo tax ñu baal ko te bu ngoonee suñu waa kër invité nañ ko reer na reeree suñ kër loolu mooy ku jéggale fattibaaun war na tofal ci bi maarufin ci lu baax waa daawun ak joxe ilayhi bi ixsaanin ci njëkk zalika loolu su ci amuloon nga xam ne mbokki ki dee mën a jéggale mu ne bu loolu amutoon kon dana bon lool waaye loolu nag taxfiifun ak wayefal la min rabbikum bàyyeeku ci seen borom ndax ku mën a jéggale jéggaleeti wa rahmatun te yërmande fa man ictadaa ku jaggati na baada zalika bale nga ba pare gannaaw ga nga meraat moom nag ne da ngay fayu ah, fa loo ñeel na ko aadaabun mbugal nag alimun moo xam ne aji metti la wala kum ñeel na leen fil qisaasi ci fayu xayaatun ak dund yaa ulil albaab yéen borom xel yu sell yi laalakum boo yéen tattaquuna ngeen ragal yàlla bay na lool mu ngi ñëw ci alwasiya alxajaaz yi ak ñu bari ci mufassiroona yi dañuy wax ne ayatul wasiya dañ ko folli ne li ko folli mooy xadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi muy wax naan inna allaha qad aata kulla di xaqin xaqahu fala wasiyata li waarisin alquran def ne woon bu nit ki nekkee ci sukkaraat wala mu ëpp ba sikk boppam na dénkaane ne suma dee sama doom sàngam nañ koy jox nangam diw nangam diw nangam diw nangam <clears throat> dénkaane yooyu nga xam ne xa ndax ndax bañ rek mu dee ñoo ñu ñàkk jot ca alal ja mu ne loolu bi yonent bi nag ne képp ku sharia joxoon nag ndax loolu bii biñ koy farataal booba aaye miraas bi ñëwagut ba aaye miraas ñëwee nag wax ñi doon na ak ñi dul doon na kon buy dénkaaneet nga na dénkaane ñi nga xam ne kon eh, waruñoo doon waaye ñi war a doon moom kenn du leen dénk dara lu mooy dañuy wax ne kon da nga koo bëggal mu jël li gën a bari loolu la lu ñu bari ci mu mufassiroon yi wax waaye ulamaaw yi ñi nga xam ne nanguwuñu nanguwuñu naasix ak mansuux ñam dañuy wax ne déedéet aaye ji kenn fàlliwu ko aaya ji dafa bëgg a wax rek ne képp koo xam ne du don na euh, te nga am alal na ko dénkee dara pour mu war caa jot bu fekkee kuy don leen nag mu ñàkk ko am ñoom ne nañ naasix man su amu ci loolu mooy seen position waaye moom it rafet na mu ne kutiba bindeef na wala farataalif na aleykum ci yéen isa xadara bu teewalee almawtu dee ahadakum kenn ci yéen in taraka ndem bàyyi na xayran alal alwasiyatu mu ne kutiba naayib bi faailam mooy alwasiya xadara faailam moo di almawtu yépp gannaaw gi indi na fi geneen jumla ci digg bi muy xadara almawtu ahadukum indi fi charte intaraka xayran doora indi naayib bi faaili kutiba kon kutiba alwasiyatu alaykum ida xadara ahadukum ida xadara almawtu ahadakum intaraka xayran loolu la bëgg wax mu ne kutiba farataaleef na aleykum ci yéen isa xadara bu teewee almawtu dee aadakum kenn ci yéen in taraka ndem bàyyi na xayran alal alal lay tuddee foofu xayru ndax mën naa def xayru waaye mën naa defit charru alwasiyatab dénkaane lil waalidayni ñan ñeel ñaari way jur ya wala aqrabiin ak jege ñaale mooy doomi ndey ak doomi bàyyi bil maaruf ci njëkk nag bul joxe lu ëpp xaqan dëgg la alal muttaqiin war ñuy ragal yàlla léegi nag kiñ kiñ dénkoon ne ko su ma fi jógee nañ jox diw nangam nangam moom mu lànk ko loolooy fa man baddalahu ku soppi wax jooja baadama samiahu gannaaw bu mu ko déggee fa ma ismuhu bàkkaar ba ala lazina war na ni nga xam ne yu baddiloonoo ñoo ko soppi inna laa yàlla moom samiun aji dégg la bu muy dénkaane alimun aji xam la ki fi des lim nar a def fa man xaafa ku ragal na min muusin ci kuñ dénk koo xam ne dañ koo dénkoon na nga ragal ne kii daal narul jubal ba ngay dund nga jël tibba ci sa loxo jox diw jox diw jox diw loolooy fa man xaafa min moosin janafan ak jëng aw isman wala bakkaar faas laa mu yéwénal baynahum seen diggante ñooña kooku fa laa isma de benn xeeti bakkaar alayhi di war ko ndax inna laa yàlla gafurun aji baal la mu ko rahimun aji yëram la bay na loolu mu ngi ñëw ci koor ak lépp lu aju ci koor koor ci luxa ñëpp xam nañ ne moo di jàpp rek ini nadartu lirrahmani sawman ay imsaakan sumtu an kaza mooy jàpp naa ca ci sharia nag mooy jàpp ci lekk ak naan jàpp ci lekk ak naan ci fequk fajar ba sowuk jant ci éene ji nga fanaanoo ko balaa fajar ci sharia loolu mooy tekki koor def ko nag ngir jëm yàlla ja ci ñépp ñi nga xam ne mën nañu ko koor alxajaas yi dafay wax ne nekk na ci xeetu jàmm yàlla yi nga xam ne tiis na gaa ci bakkan waaye lu mën a sellal roxu la nee na entraînement la maanaam riyaada la boo xam ne dafay yarale roxu génnee ko ci lépp loo xam ne amal bii la mooy loo xam ne lu négatif la lu amul benn njëriñ mu ne koor dana waajal bakkanit nag waajal bakkan pour mu mën a def mu muraqabatu yàlla ci lu feeñ ak ci lu nëbb itam mu ne koor dina yarit bëgg-bëggi doomu aadama ndax lu tax mu yar sa bëgg-bëgg xëy rek ne suba duma lekk duma naan yar ci sa bakkan ba boo xëy rek def ko kooku yar bëgg-bëgg la ba man tàmmal sa bakkan di ko jëmee fu la neex mu ne koor dana tax nit di yenu ay métit te di ko muñ Euh, koor yonent bi nee na mooy gannaaw li muñ ndax ni métti ci bakkan yépp nag loolu moo di koor euh, ci luxa ndem nii la méttee nag yàlla du yàlla du ko du ko sant nit ñëpp fokk rek daf koy sant ñi gëm yàlla foo fekk alquran yaa ayyuha alladina amanu xamal taklif bu jafee ngi ñëw bu ne yaa ayyuha naasu nag mën naa ñàkk mel noonu waaye yaa ayyuha alladina amanu su ko waxee rek fay wax ne yéen ñi ak man contrat ne gëm ngeen ma yéen ci sama diini ji lira la leen tek motax mané liber nga bi nga nek ko julit waye bo xasse nek julit du lu la neex nak def lolu motax tax yonent bi ne dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir adina ci julit ci prison la nek ndax prison moy ñak liberté bo ne ci adina tay julit du lu la neex ngay def même alal ji nga mom duut fu la neex nga ko wara jaay duut fu la neex it nga koy jëlé kon amatoo liberté ndax yaa nangu woon ne am nga iman moo tax ñoom la yàlla di woo bu jafee naan leen yaa alladina amanu ndax yéen a signé woon contrat boobu kon def leen lii koor ci atum ñaareel ci gàddaay gi maanaam yonent bi lim nekk màkk yépp koor amut bu mu ñëwee Medina ci at mu jëkk mi koor amut ci atum ñaareel mi ci gàddaay gi ci la wàccee ay bi ci suratul baqara dal di wàccee ci koor ci moom ak jullit ñépp ba yomal qiyam loola ba mu ko tàmbali def nekkoon na itam euh, jëf jëfin ju metti ndax koor ni mu njëkk wàccee ñu di ko pratiquer yonent bi di ko waree ni koy defee mooy soo wooree ba jënt so rek sañ nga lekk sañ nga naan feeñ nelawoo waaye boo nelawoon marax ba yeewu it koor gi tàmbaliwaat na noonu la woon euh, soxna yi itam guddi koor kenn du leen laal comme bëccëg bi rek maanaam bëccëg bi lañ la aaye lekk ak naan ak joteeg ñoom guddi koor nag mën nga lekk naan waaye soxna si bokk bokk gu ci lekk ak naan it feeg nelawagoo boo nelawee nag ba yeewu rek ci maras sax toko ko gi tambalin nonu la wacce won mu daldi di metti lol ndeke gañi tante jaw ñom ni ngay wor rek di jotté jigéen ni ci guddi koor rek te kenn du li kenn du wax loola nag yag lol yag lol ba ibn al-khattab def ko nak ñew ne yow mi yalla yonni man day alkuna mu ne ko lu tax mu ne li yalla def nako te it maa dem ba mënuma ko ñàkk def rek léegi nag maa ngi nii ci loxo yàlla lu mu wax ñu def ma ko rek ma xam ne noonu lañ may def ndax man ki jot na ma yàlla wàccee ci biir alquran nag ne guddi gi loolu dindi nañ ko man ngeen a jot ak ñoom xam naa ne yéen ñëpp a nga ko doon def di ko nëbb nag kii rek a ko ñemee wax léegi nag dindi naa ko mu ne koor moomu warul ñépp itam fokk dina war koo xam ne ku mën a woor la bu ne mën a woor ngi ci jublu ci ak wér am na ku màggat ba néew doole ba attanut ñàkk lekk ñàkk naan ab bés waaye am na ku ëpp koo xam ne mbaqam mënul supporter ñàkk lekk ñàkk naan ab bés yépp kooku faju na wérul mënatul woor koor da koy dal di lele rek mooy nekk farata keneen a ngi dafay tukki te tukki mi mënu koo booleeg woor ana dop bu koor gi jeexee mu fay fan yam tukki won kenn na ngi dafa op waye du op ju sax ay fan la rek mu si bureau na dop nani garabam faju bu koor gi wéé mu konti fan yoya mu dal kay fay ñoñu may nañ leen ñu dop te duñ ci am bakkaar waaye danañu fay nak waye duñu jotu amma magat mi nga xamne dafa magat ba atanul wor wala febar bu sax bi du wér ba borom mënul wor ñooñu duñu wor de waye dañuy jotu bis bu nek dañuy joxe ben mudd saraxé ko bu fekkone tay ci lewu nar la ñom gis na len bu def fidiya bés bu nek ñom ben kilo mburu la remplacer mudd mi ndax comme yalla def ne na nek ak lek te mburu ci naar daanaka moy lek su ko defé ay mburu ay kilo mburu lay jël bes bu ne mu joxe ko defee weer wi dana ci joxe fan fanweeri mburu waaye bu fekkee ci ñun la fii li gën ñun du loolu ndax mburu rek ñun duñ koy dundee li gën mooy bés bu nekk nga joxe ab téeméer waa ji demee ca dégg ca faat jaw mais dana fekk mu togg loo xam ne dana ko fa mën a jëfandikoo kon loolu lay def loolu mooy fidya ci ki màggat wala mu feebar feebar bu dul wér moom la alquran di wax wa ala alladina yutiquunahu ndax itaaqa mooy loo xam ne mën nga ko waaye ak coono boo xam ne dañ ci xaw a bëgg faatu mu ne ñooñu loolu moo leen di war keneen a ngi dafa ëmb wala muy nàmpal kooku dañ koy seet su fekkee ne xam nañ ne mënul boole ëmb bi wala nàmpal bi ak koor gi te amul jeneen alal ju mën a jëndee ay meew yi doom ja di nampee te dom ji nanguwul keneen nampal ko charte yëpp bu amee kon kooku du woor waaye dana fay de du woor day nampal ba feral wala day ëmb ba imbi waaye dana fay waxuñ nag jigéen jum neex rek nga ne damay nampal wala dama ëmb dañ na na fekk mu wóor la ne wala médecin bi ne la mënoo boole ëmb bi ak koor gi wala nga woor ba bëccëg nga daanu ñu jël yóbbu ci docteur bi bi ne kii dafa ëmb du woor mu nekk lu wóor loo xam ne am nañ ci ay preuve wala dàmpal gi itam amula soow boo wooree amula xaalis jënd meew wala baayam amul xaalis pour jënd meew te it wala gune gi bëggul biberon bi wala nanguwul keneen nàmpal ko kon doo ko bàyyi muy dee dangay ngay ñàkk woor waaye da fay ñooña la am amaa nag alxajaasi nee na loolu nag shafii ngeerum shafii la nee na bu fekkee ne gune gi koor gi day lor gune gi di loraale ndey ji mu ne kon na dog te du fay dana lele loolu nag Malik yoone yi ñoom duñ ko nangu ñoom fay rek gannaaw bu mbir moom a weesoo kon loolu mooy leen na ci ay atte yu na ci koor ndax koor mën nga wax ni rek anniversaire u alquranul karim la ndax ci la wàccoon moom alquran loola ay xadis yoo xam ne bu Buxari nettali na ko alquran dañ ko wàccee ci bëmbëstan yépp ci weeru koor ci xëytil weeri koor ci leetul qadri mu ñëw nag ñu yàlla teg ko benn béréb nag xew-xew bu ne mu indi aaya loola itam méthode pédagogique la woon xam nga bu téere bi tëboon tëb wàcc rek nit ñi dañuy tiit ndax rëyaay gi duñ ko man waaye dañ da koy teg fenn léeg-léeg benn aaya ñëw gaa mokkal ko xam ko ba yàgg beneen ñëw su ko defee nit ñi duñ yokkat ndax leçon yi day ñëwee ndànk-ndànk waaye wàcc gu jëkk gi nag ci leetul qadri la woon ci weeru koor yooyu la alquran di ba mbëstan fii naan yaa ayuha alladina amanu yéen gaa ñi gëm alquran kutiba farataaleef na aleykum ci yéen asiyaamu koor kama kutiba naka farataaleefee moom koor ala ladina ci ñépp ñi nga xam ne min qablikum nekkoon nañ ci jëkk seet égyptiens yi daanañu woor ci jamonoy firawna ya chinois yi daanañu woor romains yi daanañu woor jëlee ko ci ñoom itam ñu jëlee ko ci chinois yi ak arab yi ak égyptiens yu njëkk yi daanañu woor yonent yàlla Moussa woor na balaa tawreet wàcc ci moom yonent yàlla Isa woor na ñeen fukki fan balaa tawreet wàcc ci moom seen koor googu mooy door a jeex ki tey jile loolu yëpp kon nag xeet yu njëkk yi defoon nañ ko diinu yu jëkk yi defoon nañ ko kon yéen bu ñu leen tegee koor xam leen ni métti wut ndax kama kutiba ala alladina min qablikum yéen nag li tax ngeen koy def du pour roy ñooña waaye laal laallakum boo yéen tattaquuna ngeen am taqwa yéen looloo tax ngeen di ko def te it bariwut nag ndax du at mi yëpp ayaaman ay fan rek la maadudaatin yu ñuy lim fanweer ñaar fukk ak juróom-ñeent moo ci gën a bari booye boo nga ne ñaar fukki fan ak juróom-ñeent dong lay nekk ndax noonu la ko yonent bi waxee dafa jël ñaari baaraami loxoom dëppe ko ne asharu hakaza wa hakaza bu mujj bi mu bank benn baaraam bi ne wa kon weer weeru xamariya ñaar fukki fan lay doon ak juróom-ñeent kooku jan loolu la xam-xam saxal li ko waral moo di ne weer yi du nëbbu day day am waxtu woo xam ne rek suuf si na muy wëndeeloo day tax ba ñun bu guddee suuf si dox suñ diggante ak weer yi ba duñ ko séenati ndax jant baa nga fee weer waa nga fee weer moom ni mu tudd rek la tudd leeru jant bi nag day tàppe ca weer wa leer gi def inikaas jettu ñëw ci suuf si guddi ñu di ko gis waxtu woo xam ne suuf si jaar na diggante jant bi ak weer wi rek ñun dootuñ seen weer wi ñu daal dina deena ndànk ndànk nag la koy def bu teyee mu wàññi ci bu teyee mu wàññi ci ba yàgg rek suuf si daal di ko raw tuuti bu dal di ko raw muy terute mu génn dal di def hilaal nga gis loolu ñu naan croissant mu di hilaal dal di nekk lu dëngalu këlu urjuunil qadim la ko alquran tuddee ni ki bànqaasu tàndaram bu wow mu ne noon lay lon noonu lay lonkaloo su ko defee jant bi tëgg tëbb ko benn degré leer mu génn ñu gis ko boo légee mu jox ko ñaar ñett ñeent bu ko di ko tëbb di ko jox ba jox ko fukki degré ak ñeent jant bi weer yi daal di mat sëkk jant bi commencé di nangu mana suuf si dox seen diggante ndank ndank weer wi di jeex mu di ko nangu su ko nangootee ba nangoti fukki degré yi ak ñeent yam ko joxoon muy ñaar fukki fan ak juróom-ñett bu ci lëg sa rek mu may ko benn mu dal di génn moo tax noonu rek noonu lay mel li ci indi fan weer mooy benn waay bu la woon ba yonent bi ne weer ñaar fukki fan ak juróom la benn waay talal loxo mu ne ko lan la mu ne buñ ko gisul nag mu ne ngeen matal ko fanweer looloo ko ci indi moo tax mu ne ay fan la yuñ lim fa man kaana ku nekk na minkum ci yéen maridan di aji opp ci biir koor ga aw ala safarin wala mu nekk cim tukki fa iddatun war na ko mu wuutal fan yooyu in ayaamin ci fan uxara yeneen wa ala lazina war na ñi nga xam ne nag yu tuquunahu danañu attan ko jalal day wax ne laa yutiquunahu moom day wax ne nañ fi nattale genn laa wax ne wa ala lazina laa yutiquunahu maanaam ñi ko mënut fekk déedéet wa ala lazi dafay jum rek wa ala lazina yutiquunahu al itaaqa mooy fiilu cheyin bi juhdin jahidin ñi nga xam ne bu ñuy woor dañuy bëgg faatu ñooñu la wax ne war na leen fidyatun jotu taamu miskin leel ay miskin ñooñu nañ ko def fa man tatawaa ku coobarewu na xayran ñu ne bés bu nekk téeméer nga def ñaari téeméer ah fa walalu kan xayrun moo gën la wa ñeel ko wante su moo su ngeen tukki di gën lakum ñeel in kuntum dem nekk ngeen koy taala mu di xam boole tukki mi ak koor gi moo gën kat di ko leb lu mu gën li tax mu gën moo ne faydu la ci war loolu benn la ñaareel bi mooy fani koor ga fani koor ga rek la soo koy fayit ci beneen yeneen fan la waaye fani koor ga kon ayamin uxaar rek lay nekk kon nag wante sumu lakum in kuntum taalamun chehru ramadan weeru koor allazi mooy weer wi nga xam ne unzila wàcceef na fii ci moom alquraan alquraan ji hudan mbir mu nekk di njub li naa si ñeel nit ñi wa bayinaatin mu nekk di aji leeral min al huda ci njub moom wal furqaan te muy teqale dëgg ak fen fa man shahida ku teeweeti na minkum ci yéen achahara weer wa falyasumhu na ko woor waxut ne ku ci teg sa bët waxut fa man raa waaye fa man shahida la te xam ngeen ne ki koy ki koy wax dégg na làkk yu Quraysh yi làkkee te xamoon na ne bu mu ne fa man raa kon da koy gis ak bët waaye def ne fa man shahida ku teeweeti na rek minkum ci yéen ashahara weer wa fale sumu na ko woor mooy boo ci amee xibaar rek booye ba nga dal koy woor waxtu woo ci amee xibaar nag naan damay xaar di wëg waaye ah, man dégguma nangam mu ne xamal ne ci ëllëg sa sag lekk ak sa naan yépp xaraam na yaa ngi ci ak mooy yàlla goo xam ne gu sotti la ndax buur def ne woon rek fa man shahida minkum shahra falyasumhu wa man kaana ku nekk na maridan di aji opp nag aw safarin wala mu nekk cim tukki fa iddatun war na ko mu wuutal min ayaamin ci fan uxara yeneen jooju aaya waxoon na ko da koo baamtu alquran dafa fasaaxa ndax bu waxee dara ba yàgg am lu mu ci bëgg a teg te lee da koy bëgg a fàtte da koy baamtuwaat ba nga xam loola ne ki nga xam ne dafa ëpp wala day tukki dafay leb dafay fayaat su ko defee lim ci yasaluunaka an il xamri wal maysar nee na loolu ay tere yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala daf na koy tere mu ne sàngara moom la njëkk tudd li tax mu njëkk koo tudd ndax yenent bi dafa wax ne mooy umul xabaay si mooy ndey yu bon yëpp euh, ndax nit ki mën na def lu nekk mucc ca waaye mucc ca ca des ba mu des xamru bu ko nit ki xasee def moom dana def shirku dana def zina dana def sariqa dana def lu nekk rek comme nin ko xale wax ca bu ko yàlla dogalee ci saar yee ca kanam ci téere suuf bi fi seytaane di wax nit ukfur falama kafara loola itam benn abit mutanasik la woon dëkk rek ci jaamu yàlla tiisoon na ca lool seytaane jéem na nu nekk mu def ko ni rek mënalu ko dara am buur boo xam ne nag doom ji dafa feebar daal feebaru xel doom ju jigéen la ñu ne waay ji nga xam ne moom dafa dog ñépp rek di jaamu yàlla su ko ñaanalee amat na mu wér ñu yóbbul ko ko janq ba nekk abid ba jaamukatu yàlla ba ab diir seytaane jéem-jéem xiir ko pour yàqal jaamukatu yàlla bi mënu ko mu ne kii daal pour ma yàqal ko damay fexe ba nàndal ko sàngara seytaane ñëw ne ko xam nga yow li yéexal sa dem ci yàlla yépp moo di ne yàlla dafa bëgg léeg-léeg nga def benn ñaawteef soo tuubee nag mu baal la nga yokk garaat ci moom di ko nax di ko nax ba mu naan ca sàngara am xelam dal di wàññeeku mu ne ko gis nga gune gii ñu la indil doomi buur bi la moo gën a rafet ci dëkk bi te nga joteeg moom rek mu ne ko ah, loolu kon fu muy mujj mu ne fat du muy mujj fenn di ko nax comme sàngara si way na xel mi mu joteeg gu nekk seytaani ne ko ah, jaamukatu yàlla rek nga woon beru dey xam nga lu lay musal ci kiyam nan ko rey gasul fii ndax bu feeñee nag du baax de ñu daldi rey jànq ba gas ko dal koy suul <coughs> seytaane dem ca buur ba ne ko waaw doo laaj sëriñ bi moom sa janq ba ñu yónnee laaj ko ko fekk seytaane waxoon na waa ji ne ko na nga wax rek ne jinne yee ko dikkal rek fàdd ko far ko rey <coughs> ma suul ko ñu laaj ko mu wax loola seytaane déedéet moo ko rey xam naa fi mu ko suul daal di mbubboo ak nit jëmmi nit ñëw leen fu ko suul ñu sulli ko fekk dee na buur bi nag nekk ku def lii sama doom dama koy salab daaj ko ca kaw garab muy dund ba bu muy dee ñu jël waa ji nag daaj ko muy lang seytaane naaw ba tim ko ne sa waay fi mu nekk nag day am nga difficulté toll nga ci ay jafe-jafe de mu ne ko mu ne ko jafe-jafe yi nag man rek maa la ci mën a musal ndax maa la ci dugaloon mu ne ko loolu day dëgg la mu ne ko noo ci nan nga ma ciy musalee mu ne léegi daal da nga may jullil sujjootal ma nii ñuy jullilee yàlla su ko defee man ma jëm dugg ci mbir mi daal wax mu yàqu ba mu ko sujjootalee ba julil ko jaamu ko ni ñuy jaamu yàlla seytaan ya tëb cëpp fale ne aha maa yow ñu dara dañ nga dañ naa ci yow xeetu mooy yàlla yépp def nga ko bi ci mujjoon moo di shirku aman na sax bu ñëwutoon nga dem aljanna ba dina yàqoo léegi nag def nga ko man nag inni bari un moo tax yonent bi ne xamru kon umul khabaisi, si mooy ndeyu boy yu bon yi gannaaw ga mooy maysar maysar sar yi daan nañ ko def ci jahiliya dañ dan jël ay bant ak fukki bant dal. dal di jël juróom ñaari bant yi bu ci nekk ñu ne dana gañe nangam ñett yi nak dañuy perte juróom ñaari ay gaña lañ ñett yi ay perte lañ ko defee bu ñu yëngalee bant yi ku ci jël benn seen borom alal koy def ku ci jël benn li ngay gañee borom alal ji nga xam mo moo may sar bi mu fay ko su ko defee ñuy teg ay gëlëm wala di ay xar suñu bare ba ñu gañee borom alal ji ray yoy yépp ni ñi di ci lek ñuy gañee ñi di perte lolu mo doon cosaanu may sar ci arab ñu di def nak puugare moo xam ne mu reyan la ci ñom lala xeetu carte yépp ak lépp lu nit ki kenn ki perte ci la bok ulamaawu alfuqaawu ne nañu su fekkee mbir ma ñuy jëfandikoo am na ku cay gañe am xaalis am ku cay perte lu mu ci dugaloon te jotaatu ca loolu xaraam ittifaaqan bi nastin min alquraan alkarim su fekkee ne nag kenn du ca gañe dara kenn du ca perte yàq temps rek la moy yu mag ñu ñàkk solo yi def dajé ci garam place yi ci démé yi ak carte yi ak yoté yi rek di yaq temps bi xamné ne kenn du gagne kenn du perte lolu makruh la te yenent bi néna ku bëgg sel ngay bay makruh ci ñaar yoyu sangra nak arab ñuko bëggoon lañ batay sax nak alquran alquran wax na ci ñeenti yoon ndax bëgg ko bëggoon tax na alquran te bu rek ne sàngara xaraam na ragal na ne sax bu ko defoon tey boo sàgg ne rek ñu far ko bàyyee diineem moo tax bi muy wàccee bëgg xaraamal sàngara daf ko def li arab di wax ca dirij mooy ndànk-ndànk rek boo indee benn ba ñu miin ko mu indi ba ca topp aaya bi njëkk wàcc ci sàngara yàlla waxu ci lu mooy ne euh, tàndarma jile ak raisin bi man ngeen cee jël naan guy màndil nekk wërsëg wu rafet waaye daal baaxul ndax day màndi wa min samaraati naxiil wal anaab tattaxiduuna minhu sakaran wa risqan xasana loolu la ci njëkk wàcc alxajaasi ne nag mos nañ ko laaj ne ko lu tax yàlla teg aaya ji foofu ci xaraamal xare sàngara rizqul xasan rizqu mu tekki bi xasan ah loola te bàyyi mandité rizqu xasan la waaye mandité nga ca loola mooy tekki ne ak bona nga ca loola ihaam la ci wane ne mandee nga ca te mandi moom amul xayru moo tax mu ne rizqun xasanun sakkaran door a wax rizqun xasan ndax sakkar moom xayru da caa nekkut ñaareelu aaya ba yàlla dem ba yàgg mu ne qul fihima ismun kabirun wa manafiun linnaas ah nit ñaa ngi koy jëriñoo ci wàllu économique ndax di ca am dara de waaye bakkaar bu réy nga ci ah Omar ibnul Xataab nag ne ah mbir mi nag jar naa leeral léegi bakkaar bu réy nga ci comme bakkaar bu réy nga ci nag lii daal leeru gut ci sama bopp daal di ne allahuma bayyinna fi lxamri bayaanan shafiyan yàlla nag ñu leeralal mi mbir leer goo xam ne daal mën na saafara lii sama xol bi di xalaat ci lile mooy naru tabax yow na ñetteel wa yàlla toog bu yàgg ne laa taqrabu salaata wa antum sukaara suuratu nisa daal di ne ah waxaguma na xaraam na de waaye kum laal sàngaraati bu mu jege julli Seydina Omar ne ah mu ngi bëgg a doy waar de ñun mënunoo tàggoog julli te ne nañ ku laalati lii bu mu julli daal dina yàlla biralal ñu sàngara nag biral goo xam ne gu leer la ba yàlla wàccee nag aaya ji nga xam ne moo nekk ci sóoratul maayida nag muy innamal xamru daldi ko xaramal nag deppet nag daldi di ne faalantum muntahuun omar ibnul xataab ne allahuma intahina yàlla dellu nan gannaaw banan keroog medina yëpp dafa xasse xut dam sanib sangare yi fu nek rek ñing koy tour ku nek rek ñu yalla neena nangam ku nek tour la nga amoon ab julit non lay def bu ko yalla ne demal mu dem mu ne taxawal dafa wara taxaw lolal alquran di li ne yasalunaka ñu ngi laaj la anil ci sàngara wal maysari ak wure kul waxal ne ma nek na ci ñaar ñi ismun bakkar de kabirun bu mak wa manaafiun am na ci ay njëriñ it li naa si ñeel nit ñi bale économique la bale xëy na jéem a fàtte ay mbir la wante alquran a ngi gën a leeral ne wa ismuhuma seeni bakkaar bakkaar ba ngay jële ci wëre wa bakkaar ba ngay jëlee ca sàngara ak baru moo gën a rëy fuuf moo gën a màgg fuuf min nafihima ci seen njëriñ ci wàllu économique wala yàqub temps waxoon na ci gannaaw dañ ko laajoon ne que kuy joxe lan nga war a joxe yàlla ne woon li nga war a joxe jaruta laaj li ëpp say soxla rek ngay joxe ndax li nga mënut doo ko def kon loolu mu ne yàlla ne na woon jaruta laaj ki ñu war a jox lañ waroon a laaj mu tontu woon ca ci yasalunaka maza yunfiquun lu mu ca tontu woon qul ma anfaqtum min shay'in fa li walidayn loolu la ca tontu woon ndax li nga war a joxe jaruta laaj mooy li nga mën ki ngay jox moo jara laaj kan la mu leeral ko léegi na lay door a tontu ca li ñuy joxe mu ne yasalunaka ñu ngi laaj la ma za yunfiquun lan la ñuy war a mën a joxe mu ne tontu tontul ne al afwa li ëpp ci say soxla ngay joxe ndax boo ko defut boo sàgg ne ah, bu ngay joxe aljuma bu gaaw a nga yelwaan kazalika naka noonu yu bayinu laaw lay birale yàlla lakum ñee leen alaayaati alquran laallakum boo yéen te tafakkaroon a ngeen mën a xalaat ci lii muy wax fi duniyaa ci àddina wal axirati ak alaxira bàyyi na loolu muy wane muy bëgg a ñëw ci ab jirim ku mbokkam faatu na bàyyee ko ay doom yu ndaw yu matagul mu kàllaf mbokk mu góor wax naa ne buñ ne jirim rek ci wàllu bàyyi la jirim yooyu nan ngay def ak ñoom ndax dangay jël seen alal lekk ko bàyyi leen wala ngay denc seen alal rek ñoŋal ko te di leen dundal ci sa jiba wala dangay ngay boole sa alal ak alalam lépp lu muy dundee nga di ko calcul muy génne ci la moom mu ne noonu nga war a def loolu lay wax ne wa yasalunaka ñu ngi laaj la anil yataama ci jirim ya xul waxal ne islaahu ni yëwee noo de lawum ñee leen xayrun moo gën wa in tuxaalituhum bu ngeen jaxasee ak ñoom seen alal kon baax na ndax fa ixwaanukum seeni mbokk rek lañ ci diine والله يلا نجي على مدن قمة المفسد كي يقال الجريم من المسلم أشيك كوي دفرال لكن نقبل يلا نبول على الجلو كوتشي دون الجكال كي كوتشة لولو يرمان دلنا نحو لو شاء الله وبني خون يلا لا أنا تكم مصنع لين نب نبوش على الدارا تنام كدون دل إن الله يلا عزيز ناجن أدلتي كات نم حكيم يلا جي قرر اللهم بين الله mu ñëw ci mel menn mbir moo mu ngi jaaxal jullit yi waxtu wu nekk ñu ngi koy laaj moo di ne ab jullit denc ku duut ab jullit bu fekkee ne aji denc ji mooy jullit bi ku góor ki mooy jullit bi kan la mën a denc mën naa denc ab jullit bu jigéen ni moom mën na caa denc ba ñeent waaye su fekkee ne duul ab julit bu jigéen na fekk mu bokk ci àllul kitaab na nekk yahud wala mu nekk katolik li ko waral mooy dañoo am xaasim mushtarak suñu xaasim mushtarak moo di ne ñépp noo bokk gëm amuk yàlla bokk gëm dee ak dekki ak aljana ak safara ñu war laa fay gannaaw dee ñoom it gën gëm nañ lool kooku nag mën nga kaa denc alquran ne su fekkee ne catholique bi wala yahud bi mooy góor du dagan ñu di ko may julit bu jigéen léeg-léeg am ñu koy laaj naan l'islam n'est pas démocrate fekk dañ dut xàmmee mbir ya ndax boo seet loolu mooy démocratie ndax man mu góor mi nga xam ne maa ngi ci lislaam ak yow mu jigéen mais nekk ci catholique wala yahud man gëm naa Moussa sab yóninte yow yahud bi gëm naa yi di Isa sab yóninte yow catholique bi ne yóninte la te maay borom kër gi kon mën naa laa yore ndax man nangu naa ne sab yóninte yóninte la su fekkoon ne man mu jigéen nag maa war a sëyi ak alul kitaab bu góor te moom gëmul ne sama yóninte yóninte la xam nga duñ mën a nekk nekk koo xam ne gëmul sab yóninte du sotti moo tax yàlla ne yéen mën ngeen ci denc waaye ñoom mënuñ denc ci yéen kon loolu mooy maslaa bi ala kulli xaal ñoo ñu ngi mën a denc waaye mushrik nag ku amul diine dittu di yéefar kooku nag moom mënoo ko denc moom ak lu mën a xew alxajaasi ne na li ko tax a mooy ku naan mursid ibnu mursid benn julit la woon bu gàddaayoon ñëw Medina dëkk ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ca Madina mu ne mu dem màkk yonent bee ko yónni woon màkk mel na mbir ah mu dem fa nag gis fa benn jigéen boo xam ne mushrika la ndaw saa ngi tudde eh, ànnaaq ànnaaq nag ndeysaan eh, xaritam bu jigéen la woon daal booba fekk na mursid tuubaguloon xaritam bu jigéen la woon daana am fu ñu daan jaar mu dem nag màkk léegi jullit la xanaaq gis ko ne ko sawaay doo ñëw nu wéet nañ daan wéetee mu ne ko déedéet loolu lislaam da ko xaraamal te maa ngi ci lislaam léegi mu ne ko kon nga takk ma mu ne ah loolu nag de sañu ma ko fokk ma laaj ki yàlla yónni woon ba xam ndax mën naa la takk mu ñëw laaj ko yenent bi yenent bi ne ko su tuubee su tuubul day lislaam teqale na seen diggante loolu lay wax ne wala tankihoo bu leen takk almushrikaat yéefar yu jigéen yi xataa yumin na lu may ba ñu gëme yàlla wala amatun nga takkoon jaam bu jigéen muminatun bu gëm yàlla xayrun moo gën fuuf ci wàllu diine min mushrikatin ci yéeféer bu jigéen bi wala ajabatkum donte yéemoon na la taarab yéeféer bu jigéen bi it takk jaamub julit bee moo ko tane wala tunkixoo bu leen séyloo almushrikiina yéefar yu góor ya bu leen leen sëyloog seen ak njaboot gu jigéen xatta yuminoo lu mooy ñoom dañoo gëm yàlla wala abdun nga jëloon sa njaboot gu jigéen may ko jaam bu góor muminun bu gëm yàlla xayrun moo gën fuuf ci diine min mushrikin ci nga koy joxe bi yéefar wala waa ajabakum donte yéefar ba yéem na la lu waral loolu ulaayika yéefar yu góor yooyu buñ ci amee doom yadacuuna dañuy woo njaboot gaag jabar ja ila naari jëm ci safara wallaahu yàlla nag diineem ji ku ci nekkoon yadoo da lay woo ilal jannati wal maxfirati ak njëggal bi isni ci ndigalam wa yubayinu nii la yàlla y biralee ayaati alquraanam dinaa si ñeel nit ñi laalum ndax ñoom yatadakkaru na ñuy waaru ci lool bàyyi na loolu léegi ma ngi ñëw ci ay atte yu mu ngi aji ci biir kër gi muy jigéen a ngi nii gis na deret judd na ko ji si weer wu ne benn yoon ndax dañ koy ber ba duñ bokk benn lal ndax bu toggee duñ ko lekk wala déet alquran ne buñ joteeg moom de mën ngeen nekk ci benn lal mën nga lekk ñamam lépp lim doon def da koy def joteeg moom rek mooy des loolu nag ba mu ne yàlla nee na xam naa ne moom ah, jigéen daal dafa mel ci jëkkëram ni ab tool borom boromab tool nag mën naa wëri toolam ci waxtu wu ne waaye mën naa duggee toolam ci boor bu ne waaye du nekk fu ne loolu alquran di bëgg leeral ci biir mu ne wa yasaluunaka ñu ngi laaj la anil maxiid ci mbërëg qul neel huwa moom day aadan azan lor la walla nga ne aadan sobe la faatasiloo beru leen nisaa jigéen ña fil maxiid ci mbërëg li luy maanaa itizaal duwul itizaal adamul qurbi waaye itizaal adamul mudaajaa wala taqrabuhunna bu leen jege leen xataa yatxurna lu may bata ñu laabee muy bata ñu sangoo fa ida tataxarna bu ñu sangoo nag faatuhunna dikkal leen leen min su haysu amarakumullahu ci béréb bi leen yàlla digal ngeen dikkalee leen fa yàlla bind ni ko xamee dama dama dafa nit ki mën na wax ne béréb bi am na deret waaye ma jaaree ci beneen béréb mu ne min haysu amarakumullahu laa wax ndax inna laa yàlla moom yuxibu dana fay attawaabiina ñi tuub waaye wa yuxibu dana fayit it almutataxirina ñi laab ci ay sobe nisaawukum seen jigéen ñi xar sun may rek tool la lakum ñeen leen faatoo dikkal leen sakum seen may ana shitum waxtuum leen neexe ana yufidul waqta anashitum duut fum len nexé min haysul makaan waaye fu mu leen neexee min haysu zaman looloy anashitum moy waxtu len nexé waye neexee duut ci béréb bum len nexé ci jëmmi ndaw wa qaddimu na ngeen jiitali anfusikum ñel seen bop yenen mubasharat yi soxla ngeen ko wa wattaqullaa ragal len yàlla wa'lamu ngeen xamni annakum yéen mulaquhu ñi dikke fenen nañ xam nañ ragal yàlla xam ne danañ dajeeg yàlla te loolu aaye woon na ko yonent bi alayhi salaatu salaam nee na man ata imraatan fi duburiha faqad kafara bi ma jaa bi muhammadun wa bashiri xamalal bégalal al muminina way gëm ñi yàlla ak aljanna bay na lool léegi ma ngi ñëw ci ngéeñ ngéeñ mooy lan ci usool mooy ilzamu ma la yalzam bismillahi mbira ngi warut la woon nga bëgg a ko waral sa bopp ci turu yàlla billaahi danaa def nangam kenn forcé wu la ci woon waaye waral nga ko ci sa bopp ci turu yàlla boobu nga wax loolooy nag bu fekkee ne nit ki dafa géñ ci turu yàlla bu ñuy wax mooy ku géñ waaye boo géñee ci turu keneen turu leneen lu dul yàlla shirku la sàkkal nga yàlla morom ndax nee na aw turam la war a géñee nga wut weneen di ci géñ te gis nga sirku boobu ni mu baree ci nun daanaka duñ ko yëg dangay gis ay boroom xam-xam yoo xam ne duñ géñ ci yàlla ci nit rek la ñuy géñ walla ci leneen te sirku la yàlla ne loolu bu leen ko def léegi nag su fekkee dangaa géñ ci aw yiw ne doo ko def yeneen bi nee na na nga def yiw wa te teñu ci ngéeñ la kafaara ko boo géñee ci lu xaraam ne danga ko def yonent bi ne bàyyil ngéeñ la mu teñu nga kafaara ko te bàyyi lu xaraam la géñ ak mooy yàlla ne danga ko def ñu ne la loolu dafa xaraam nga ne waaye géñoon naa ko danaa ko def loolu alquran ne bu leen ko def ndax dafa mel ni yàlla ngeen def ab gàllankoor ci def lu baax li wala nga géñ lu baax ne doo ko def ñu ne def ko kat lii kat farata la nga ne géñoon naa ko kon ma ngi mel ni yàlla nga jël mu nekk gàllankoor ci sa digg li ngay wara def lolay wala tajalu bu len def la yalla wa ordatan mudib galan kor li aymanikum ci sen ngiñ antu barro ngeen baxat bax gi ngeen def yalla mudib galan kor ci du ngeen ko def ndax jëñoon ngeen ko lol bu len ko def wa tattaqu ak ba ngeen ragalat yalla wa tuslihu ak ba ngeen di yewenat ngeen def yalla mu nek urda bayna nas wallahu yalla samiun aji deg la alimun aji qam ngeñ nak ñett la يمين اللغو ويمين الغموس ويمين البر والحمص benn ngéñ bi ñaari ngéñ yi kenn du leen kafaara ndax benn bi dafa jarul kafaara benn bi kafaara da ko attanut fokk borom ñu lakk ko mooy yaminul xamuus mooy di géñ te mu wóor la ne ngay fen te bari na di géñ te mu wóor la ne du dëgg kooku mooy yaminul xamuus mu ne su muya xamuusan li xam si saaxibiha fi naar kooku kenn du ko kafaara ndax kafaara mënulu ko dara tuub rek sa digg yàlla moo xam bu la baalee moo xam bu la baalut ngeen seet nu ngeen def benn bi mooy yeminu laxwu ko kenn du ko kafaara mooy sab kulisaan dee wallaahi waaw wallaahi nga xam ne wallaahi jéeg yooyu da koy boole ci wax ji noonu rek waaye jubluwu ci sax ne da ngay géñ kooku laxwu la yàlla du leen ko jàppee ndax fasu leen ko ngeen li leen di yàlla jàppee moy mbir taxaw ngane billahi nangam wala wena tur ci tur yàlla yi nangam te fas ko ci sa xol loola mom bu dugul deug yàlla dana la ko jappé mom dal qur'an di wax ne la yu'akhidukum allah du jappé len yàlla bi lax ci ay neen fi ay maanikum ci seni ngéñ walakin waaye yu'akhidukum dana jappé len bima ci ngéñ lo xamne kasabat faggu na ko ci gëm qulubukum sen xol yi wallahu yàlla gafurun aji bare la rahimun aji yërëm la xalimun aji lewet Umar ibn al-Khattab daldi ne bi abi anta ya Rasulullah mu Umar man kaana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut mu ne sama baay moom sax am na bopp ndax ci baayam la génn génn ci baayu jaambur yonente bi ne ko Omar kuy génnati na nga génn ci yàlla kon lalu moo di sunnaam léegi nag bu nit ki génnee ci ne dana def defut wala du moy teñu na su teñoo lan moko war na kafaara alquran dana ko wax ci benen beurep ne na leyal fukki miskin wala mu leyal len wala mu gorel jam wala mu wor ñetti fan nga xamne ne jafé jafe na ndax itam su fekke ne bu fekke dafa ñak bu ñaké na wor ñetti fan bo gisé ci bir alquran mu wax fukku miskin ba yag mu wax ñetti wor ñetti fan moo dina leyal fukki miskin bu demee bay yem ak woor ñetti fan lekk jafe woon ndax it boo mënoon a am tey rek lu mel ni juróomi kilo buñ ko toggee rek fukk mën ci lekk waaye loola nag jafe woon na ba mu tolloog woor ñetti fan wala goreel ab jaam kon jafe na borom bi ne bàyyi na boobu àtte mu ngi ci beneen àtte ci sëy muy al ilaaw ilaaw mooy lan génn góor gi dafa ñàkkam xel mu géñ na du jote teg jabaram dara boo ko géñ sharia da koy da koy seet rek bokkul ak nag ku tongoo wala ku meroo rek te géñut am ñu koy jaawale la am ko ne la sama digg ak diwkat bu yàggee day xaraam ndax naa ngi weer jote wuñ dara déet boo ko géñuti dara bu jëne di bu fekkee yaa ko géñoon nag sharia da lay seetaan su demee bay bëgg mat ñeenti weer ñu woola ne sa waay kat fokk nga dellu gannaaw ci ngéñ li te kafaara ngéñ li te joteeg moom wala diggante bi day xaraam faw mu nekkam passé mu dem feneen ndax loraange di ci am loolu la di wax ne wala lilladina ñeel na ñi nga xam ne yuloo na ñooy géñoo min nisaayam ci seen i jigéen ñeel na leen lan tarabbusu arbaati ashhurin kon tarabbusu arbaati ashurin lillazina yu'luna min nisaa'in mu ñu ndiku ñeenti weer di leen xaar ba xam fayin faawu balaa ñeenti weer a jeex ñu dellu ca lañ waxoon ñu ñu bàyyi ko kon baax na ndax fa inna laa yàlla xafurun aji baal la mu la ku def lu munut raximun aji yërëm la ku dellu gannaaw waaye wayin azamoo buñ dogoo ca jëf jooja talaaxam passé kon day nekk passé fa ndax fa inna laa yàlla samin aji dégg la lam waxoon alimun aji xam la lam ca namoon bàyyi na loolu waaye soreegul foofu ndax ma ngi ci ah, passé bu amee nan la ñuy def ba roxom gi set pour keneen mën kaa jël loolu moom lañ tuddee edd mu ne wal mutalaqaatu jigéen ñi ñu fase ña yétara bés na dinañu muñandiku bi an ne ci seen bopp salaasata quru in ñetti weex luy ci seen bopp ci seen bopp mooy na ne tekk ci boppam bu mu am génn góor gu ko ñaareel mooy bi an fusihin mooy mu yeddawu du am génn góorati gu koy ñaareel cib lal ñetti weex luy ñetti weex gis deret sangu genn weex gisaat deret sangu geneen weex loolu mooy salaasatu quru in edda ngoog wala yaxilu du dagan la wut na ñeen leen an yaktum na ñu ñu nëbb maa xalaqa la bind na ko laaw yàlla fi arxamiina ci seen roxam ya bu fekkee fase dafa am muy eddawu te dafa ëmb du dagan mu nëbb ne dafa ëmb ndax bëgg rek mbir diggante mag waa ji jeex muy nëbb biir ba loolu moom du mën a am na ko daal di leeral bu ragalee yàlla in kun naw dem nekk nañ koy yumin na di gëm billaahi ci yàlla wal yow mi ak bés bi al axiri bu daa ji mujj te lu néew ci ñoom la wa buulatuhunna seen jëkkër ya nag xaqu ñoo gën a ay bi raddihinna ci delloo si leen ci bu mag sëy ga fi zalika ci waxtu eddawu bu edda di am nag jëkkër ja moo gën a ay ci fayli ko delloo ko in araado bu ñu bëggee kay islaahan defar seen defar diggante mën nañ koo def fekk edd bi jeexul léegi nag soreegul foofu ma ngi bëgg a wane lan mooy xaqi jigéen momit dafa am ay xàq xàq moy yim wara jël yim wara war jot comme ni ko góor amee mu wala hun na ñeel na gor jigen ñi misul lazi kem li nga xam alayhi na war na leen bil ma'ruf ci lu bax amna lu ko war ci lu bax waye amna lu mom ci lu bax ñu defal ko du tere nak walir rijali ñeel na gor ñi alayhi na ca kaw jigen ña darajatun daraja gor nak moy nek borom kër gi moy nek chefu famille bi lolum yàlla moko ko jox mu mel ni dafa am ku koy weddi naan ko waaw lu tax te ñoom ñëpp ñu yem góor ak jigéen ñoo war a yem mu ne déet yàlla mi wax lii moo leen xam ndax moo leen bind wallahu yàlla azizun ku nat ci kàttanam la ba xam lii xakimun ku xarala la moo tax mu wax ko léegi ba tey bàyyi na loolu waaye ma ngi ci attey passé attey passé almazhabul maliki dañ ci am leen la ñuy jëfandikoo loo xam ne farlu gu omar ibnul khattab ci lañ ko tek moo taxit bu la neexon nga ñak ko top ndax farlu omar bu la neexé do ko top ndax ken yéen wutoon omar ci yow loolu moy bo démé ci risala wala nga dem ci khalil daf nan la wax sa jabar ne ko sa bu ci sa jot géré wala mayna la sa bat ñett la ku wax bariyatun aw khaliyatun mu ne ñett la ku wax ne fasena la ñett yoon mu ne ñett la ku wax ne xaraam le naa la mu ne ñett la loolu moo nekk ci sequl maliki ndax omar ibnul xataab moo ko def omar ibnul xataab radiallahu an bi fi yonent bi nekkee ku fase ñetti yoon ci benn jotaay benn rek lay doon daawul am benn baat bu mën a nekk ñett jamono yonent bi Babacar bi mu nekkee xalifa ñetti atam yooyu benn baat buy nekk ñetti passé mësula am Omar bi mu nekkee xalifa ñaari atam yu jëkk yi parce que ñett mënul am ci benn jotaay mënul am ci benn baat léegi nag mu ne man maar naa nag nit ñi yàlla def leen a may ñu fase benn yoon dese ñaari buum fay liwaat wala edd jeexe ñu tëkkaat mën a fasewaat mën a fay liwaat wala tëkkaat bu edd jeexee mën a defaat ba ci ñette la mu door a xaraam léegi ñu yàkkamti léegi daal ku ñëw ne fase naa ko ñetti yoon rek ma ne kon dog na wax ji ma lay wax mo nek ci sunna boo ko seetee sequ sunna yi nga koy omar nak def farlu goga ñu diko ko ifta bobu nak nga la omar dañ jëfëndiko malik dal di jël ndax omar wax na ko abdullah ibn omar jël wax ja ne sama bay ni la ko doon jëfëndiko abdullah ibn omar xam nga mo jangal naafia naafia xam nga ne momitam mo jangal malik léegi Malick wax loola Ibnul Qasim ma jàngoon ci moom dal li ñibbi Égypte def loola mu di ngéer sax na woon jóge Tunisie dem jàng Égypte ci Ibnul Qasim gàddu ngéer mi indi ko Tunisie mu ñëw sowu jant loolu moo nu yóbbee lool. waaye yàlla moom dafa waxoon rek ne parce que moom ñaari yoon la mën a am luy ñaari yoon la mën a am pase moo xam ne soo ko fasee jigéen war koo mën a fay liwaat ñaari yoon nga ko man fase nga indiwaat fase nga indiwaat que ñetteel moomatoo fay li kon nag ñaari yoon rek la mën a am looluy marra ci xalaara bi waaye tëb rek ne fase naa la ñetti yoon xaraam dinaa la mu dog loolu nekkul marra ndax it boo seetee ci mantiq ci ci logique buñ say wi tak nañ ko ci ñetti boom nga dag genn boom ga war des ñaar waye boko dagge mom boom gogu ba mu dag nak nga jëlat tak ba dawal ko fi nga daggon do daggaat fase nga ko ba pare parce que mënatu koo yëg kuñ fase kenn mënatu ko fase mata yalla ni ne talaq parce dal marratan ñaari yoon rek la mëna am jikir mëna a fayli gannaaw ñaari yoon nak bu delloo see ndaw sa fa imsaakun benn mu téye ko bi maarufin ci njëkk aw tasrixun wala mu bendi ko bàyyi ko bi ixsanin ci njëkk wala wala wala yaxilu du dagan nag lakum ñeen leen an taaxudoo ngeen jël mi ma aataytumuhunna ci li ngeen leen joxoon seen tus fase nga ko ba pare déet can nga koy nag moom da koy ñàkk nag ndax ku jëkk jukki nag bàcca illaan yaxaafaa lu moy ñu ragal nag allah yuqiima du ñu taxawal xuduudallaahi daylu yàlla lu may ñu xam nag ne ñaar ñii daal mënatuñoo nekk mbokk yépp xam ko kon na ñuy def yàlla ne fa in xiftum su ngeen ragalee allah yuqiima ne ñii duñ mën a taxawalati xuduudallaahi daylu yàlla te daylu yàlla mooy ku jigéen ki respecté ku jigéen ku jigéen ki respecté ku góor ki ku góor ki yërëm ku jigéen ki bu ngeen xamee ne mënatut a nekk kon nañ summee ko kon fa laa junaaha déet bakkaar alayhima di war leen fi maftadat ci la jotu nako jigen je, bi bihi ak jëkkër je jox ko as alalam naw ci dafa ñew na yonent bi sama jëkkër ji bëggatuma ko mënuma nekk ak moom mu ne ko lu la joxoon ci can mu ne ab tool mu ne ko delloo ko toolam te dem mu delloo ko toolam su meeku dal di am loolay fi bihi تلك لولو حدود الله موي دايلو يالا يي فلا تعتدوها بولين جيغيكو ومن يتعدى كو جيغينا حدود الله دايلو يالا يي فاولئك نيوني نك هم نيوم نك الظالمون لولين تا فك نك بو كين واخ دارا نخ نيو توغ سين بوب نك يالا نيو في نين في يام nga جيغيكو لولو مو داي وار القران ني تلك حدود الله fase ñaari yoon indi waat ci ngay mën a yem doo fay leeti boo faseetee dafay dal di jeex yow nga faseeti diggante bi xaraam برهام باء وراء ألف ثم هاء